ginnaaw ba ñu amalee ab audience ci président Macky Sall ñoom responsable APR yi nekkee ci département bu Mbacké zone 4 bi amal am ndaje niki tey ñoom responsable zone yi ñoom ñëpp teew woon ko Moustapha Bassir Silla moo wax ci seen kàddu ngir xamle solo ndaje mi lee dajale woon tey rek mooy comme directive yi nga xam ne président Macky Sall ci audience bi nga xam ne dalaloon na ko département de Mbacké joxe woon na ko ci ñu delluwaat ci zone yi dajale leen waxtaan ak ñoom ñu def nag mu am solo tey dajale mbooleem entité yëpp bàyyiwuñ kenn wana ñëpp ñu ñëw waxtaan ci waxtaan wu dal déglante nañ euh, ci joxante cër wa gu mat sëkk comme niñ ko xamee ndax euh, ñëpp benn lañ donc waxtaan nañ waxtaan wu am solo déglante nañ weccoonte ay xalaat ci naka la ñuy def ba directive yi nga xam ne président joxe na ko mu jëm ci élection législative yi ñu jëm ñu mën cee ànd mën cee dem ak booloo man cee dem ak xol yu ànd man cee dem ak yëkkateendoo di tegandoo ba nga xam ne résultat yi nga xam ne bëgg nañ ko dinañ ko am. moom soxna maam say Mbàkke moom kat ma ngay xamle ne boole mag ñi ak gone yi mooy yittey président ngir ñu mën a am ndam ci dëkk bu sell bi di Touba. waaye am majorité ca assemblée nationale. ci li naa bëgg muy jege askan wi jàppale seen ak jigéen ñi ak booloo doon benn. élection yi président moo bëgg kon nag comme moo bëgg moom lépp luñ ci man rek ci def comme am ndam assemblée ci loolu lay taxaw. ban taxawaay ngeen am lu ngeen di waajal élection yi dem yi moom fas yéenee rek takku doon benn ba mu am ndam Touba loolu la bëgg tamul bëgg ñun ñi tamit nag joxante waat loxo ànd ñun ñëpp booloo doon benn. moom El Hadj Alioune Sylla dellusiwaat di fàttali président ci taxawaayam ci biir zone yile ngir moom président mu am taxawaay bu rëy ginnaaw ba ñu amee ay zone moom coordonnateur bi di xamle ne loolu rek doyul wareef bi kay mooy sàkk ay responsable ngir ñu koy mën a demal fépp comme moom ni mu ko tàmmee di defee doon ab milieu terrain ngir mën a xam jafe-jafey askan wi ngir ñu mën caa def seen kéemtalaay kattan. ñun nag ñoo ngi déglu paysan moom itam yaakaar naa su ñu bëggee nu gañe moom it dana am nu def ban ban mën a gañee lan ngeen di si moom. bari na bari na parce que dañ koo sonal demal ko ci ay élection yu nga xam ni toujours ci ndigalam lañ ci doon wéy ndax local yi rek moo ci mujj bi mu joxee joxuñ ki mu joxuñ dañoo dem ànd ca am ñu ci ànd àndutoon yaakaar naa su bëggee jël ñooñu nag wotee ñu ko ñun suñu côté dana métti ci ñun. Mm-hmm. ñu ngi déglu ndigalam waaye nag bëgg nañ tamit ci wàllu politique mu ñuy bàyyi xel ndax bu dee mille 2017 ay zone lañ fi tënkoon ñun ñu tënk millier de terrain. fexe ba wëral ko Touba yaakaar naa bañ ko defee changement am na ndax lum fi mu am am na ko ci yoon booba xaw ma man la xaw ma ku mu doon mais man damay jàpp ni soon kese baax na mais fokk ñu boole ci fu way bëgg dem fekk fu sey militant nga nga diko def gis nañu fi nga nekk ci département bari na ko caxoo ci parti bi euh, est ce que man bu ngeen bu ngeen ci demee ni élection japp ngeen di ngeen ko gañ waaw paccaxoo gi lolu moko ko indi ndax buñ la né togal sa son rek yam fa te say militant uppé fanen lolu day indi paccaxoo ndax bu saw nit nekkee fenen te tañu ni la do fa dem te ñu wa son bobu ni leen duñ leen sedd lolu ciolo fi gis lu ne moo indi wala wat sanction kon duma bëgg rek président tamit son yi baax na mais na wut ay responsable yi xam ne ñoo koy politiqueal di ko demal ci nit ñi yaakaar naa loolu mun mënut a ñàkk ñi nga xam ne tënkuwuñ fenn foog ñu boole leen ci yi ñi ñi nga xam ne politique te bëgg a wateel président te gisuñu ko ñu waxal foog naa président foog mu génne mooy xay du dugg ci son danay dugg ci responsable yi nga xam ni bu demoon ba laaj bi bilan bu ko laajee ñu wax ko nan lañ def xaalisam. mu doonoon am ndaje mu am solo lool. mel ne retrouvailles amaan na ci seen biir ñu joxante waat loxo ngir fas ni am ndam ci dëkk bu sell bi di Touba. waaye ñu fas yéene dëxëñ ab mémorandum jafe-jafe yi nga xamee ne diggante Sam ak Madiana ñoo ngi koy jànkonteel ci wàllum politique te jàpp na loolu sax bokk na ci li nga xamee ne moom moo leen di xañ ñu jëbbal ko njiitum réew mi ngir mu wut ci ay solution daar